كتابتي أحمد بن عبد الله قسنتي وسانني النلائي سنت بشري مكاتب التسوق أهمدنا ميسرا i زر ساعة القرآن ونبي ndax fi jamono gi toll bëgguñu muy muy ëpp waaye dañuy waajal siyaaru mag boo xam ne magal gi jàlle ñëpp nañu ko dajale fekk lépp jeexit nañ ci loolu ñu ngi sant baax na Mbacke ndax nañ moom yëf yi di ñu ngi ziar la ñaanal sunu borom yàggal la fi lool may la li nga bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa yëpp nga defe ko ni mu la soobe ni ko sëñ Abdou Lahad mi waxee rek lépp nag ci moom mii la doore ndax ginnaaw ay xalaatam yu rafet ak yëg-yëg bu mu am ci yoon wi ak pas-pas bu mu am ci jàppale la ci liggéey bi moo waral mu jàpp ne suñu dajaloo ginnaaw bi ñu doon xalaat jëm ci wàllu googu ku ne xam na ne àddina si communication dafay nekk lu am doole te kër yi tas xibaar yëpp foo ci dem sang njaboot rek a fa nekk ñu ne nañ dajale njabootuk sëñ Tuubaa gi tas xibaar ak kër guñ mën a bokk ci biir réew mi ñu boole def menn mbooloo moo xam ne danañ di saytu communication ak di taxaw ci yoon wi ci wàllu yooyu di ko yaatal ak di ci am ay taxawaay yu am solo ginnaaw bi ñu taxawee nag li ñuy wax ne murit saa su nekk rek li muy jiital ci boppam mooy ndigal biñ ci waxtaanee ñoom mu dajale ñu jàppandalal ñu ñëw bi taxawuñu ñu itam ci ay xalaat bañ yegg si ci yow ngir bëgg nga ñaanal nu loonu ci wax boo la waxoon bu ngeen jógee fii it mën ngeen di delluwaat ci li ngeen newoon ba ma woowaat leen noonu lañ koy defee waaye duñ jiitu itam ndigalul soo nu ci ñaanalee jàppale nu jox nu tur danañ jug dox jëm ci loolu te dara ci wuuteeg njàngalem sëñ Tuubaa ak tegginu yoon wi ak ma yoon wi dara du ci wuute itam sa ndigal ak sa kàddu ginnaaw moom mii bu mu amee nag taxawaay boo xam ne am na ko ci ñii daje ci biir jataay bi yëpp kër gu nekk ci biir tasukaayu xibaar yi na ci réew mi foo ci dem am na ñu leen fi teewal am na ci ñoo xam sax ay kilifa yu jiite ay tasukaayu xibaar lañ ñu ci biir liggéey bi te ku ne xam ne ne loolu liggéey la boo xam ne ni jamono ji laaj na ko ci ci liggéeyin wu sell wu jaar yoon moom mi ñu di ko sant ci sa kanam ndax budul woon lii démb ak tay ak suba yëpp mi ngi ñuy taxaw ci taxawaay bu am solo boobu ginnaaw loolu la ñu boole sëñ Abibu Mbay mi nekk RTS nga xam ku yàgg ci taxawaay mel noonu la ñu dajale mbokki taalibe yi fi nekk ak nga xam ne ni ay kilifa lañ ndax ay sëti sëñ Tuubaa ngi ci biir ay boromi xam-xam a nga ci biir bëgg di saytu di waxtaan di ko tënk ci xam-xam di waxtaan ak bokk yi ci loo xam dana dëppaloo ak njàngalem sëriñ bi ak lépp lu jëm ci communication bu jëm ci kilifa gi ak yoon wi loolu lañ ci bëgg Mbàkke bëgg nga ñaanal nu ci ginnaaw boobaay ñoo ngi lay ñaanal tam yàlla yàggal la fi loolu te ni ndax sunub sag nga sagub lislaam bi nga sagub Sénégal nga sagub réew mi yëpp nga yàlla la fi yàlla gën a yàggal te nga wér Mbàkke noo ngi jégalu bu baax a baax noonu nga ko waxee noonu la demee mhm. doy na sëkk ndax lu mu seet ba di mu yitteel ngir la ko sëriñ bi loolu ànd ci am nga ci loolu liggéey bu rëy la te itam dara am solo ndax adduna moom daa bëri ay mbir lool bokk ñi bokk kenn ku yaa moom sa bopp. lu tax a lu rek ñu dem lu mel demee noonu rek. loolu bëgg euh, taxaw. Euh, maanaam jañ lépp loo xam ne. lu la jë jëmi ci yoon bi. ngeen jañ loola. ah loolu tabarkalla liggéey bu la. liggéey bu rëy la euh, am am am yaakaar bu mm-hmm. di sant Seex Abdu ñu mhm. Mhm. da doon leeral rek. gàddu ci leeral la ci toll rek. Mhm. ak mu doon leeral rek ànd ngeen ànd ak Serigne Cheikh neen lépp loo xam ne xalaatam la wala yitteem la loo xam ne ci yoon wi la ak lu koy jëmale kanam rek moom ànd na ci yéen loolu rek dama sant na baax ci ànd ngeen ànd ak moom ñëw ci ñëw ci kanamam mo loolu moom na ngeen xam ne am na ci mbégte lool mi ngi leen di gën a boole ak moom lépp loo xam ne luy xalaat la rek ak luy boole ak luy defar rek moom am na ci ndigal ci Serigne Cheikh Abdou ngir mu jëm ci yéen waaw loolu la doon leeral rek waaw incha allah jërëjëf sóoratu Naba. Naba yi sóoratu Naba yi. waaw. sóoratu Naba yi. bisimilah. na ñëpp taal la bisimilah.